من الإهمال والروغان اذهب إليه ولو بحفظك آية فالوصل يروي ظلة الظمآن عقب الصلاة احفظ ثلاثة أسطر مع كل فرض alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah mbokk ñu seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew jërëjëf régi sunu gan agsi na Cheikh Abdoul Khadir Cheikh Abdoul Khadir asalaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatullah. nu bàyyi la nga nuyoon teeg ñu ñuy seetaan. waaw ah, gannaaw bañ la nuyoo. Mhm. ziar la bu baax. di la ñaanal jàmm oustaz di nuyu suñu mbokk internet yi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel. di bàyyi mhm. xel euh, oustaz Sall en ligne. est-ce que yëngu na mën naa la. li ma la ëpp na de. aca <laughs> alhamdulilah <laughs> jërëjëf léegi loo indi tey waaw balaa may indi nag ma rafetlu sa taxawaay ba mhm. si suñu suñu bés ba alhamdulilah waaw dégg naa itam li nga xam ne mooy ndénkaane mhm. gi nga ma dénk waaw aljuma bi ñu weesu mhm. dama ko dama dam kar ko ndax xam naa ne danga naa la dénk ok <laughs> taxawaay ba nga fa taxawee xamoon naa ne pareegoo woon. incha allah dénk nga ma bàyyi naa ci xel. Mhm. dinaa ci def sama kéem kattan jaamoo ko yàlla. incha allah incha allah oh, góore waay. jërëjëf mhm. gannaaw loolu. Mhm. Euh, li ñu indi ci question d'actualité tey. Euh, mu ngi toll ci ñeent. Euh, après ñu dolli ci li nga xam ne mooy ndenkaan bi. bu njëkk bi mu ngi concerné wàllu géej gi. Euh, jamono ji ci période vacances la ñuy dugg. Mhm. Euh, dimanche bi ñu weesu gis nañu ne ci géeju Malika. Mhm. am na ay ndaw yoo xam ne doon nañ fa sangu. Mhm. Euh, ci benn diir ci jamono bi ñu doon sangu. marée haute am maanaam géej gi daal di fees. ba mu feesee nag am ñu bëri ñu mu yóbbaale ba fi ñu toll nii ba ci dernier billan bi mu ngi toll ci fukki ndaw ak benn yoo xam ne. ñoo ci génn àddina sa mhm. euh, euh, waxtaanu tey mu ngi jëm ci yaru ndaw ñi mhm. lu jëm ci loolu mhm. taxawaayu ndaw yi ak nan lañ war a toppatoowee ci société bi ak ni ñu war a taxawee li nga xam ne mooy wàllu discipline beek yar bi euh, boo ko booleeg jàngat bi ngay def ci cadre noyat bi lan lay nekk waaw ah, jërëjëf Cheikh Abdou Khader subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka anta alimul hakim hmm. gis nga ab yar xale yi bu ñu booloo ñoom ñëpp su mag ñi tasaaroo xale yi man leen mhm. bu mag ñi booloo xale yi booloo mag ñee man xale yi daa ngeen am ci seen ko ñu tuddee grand contre petit ci football. waaw ab yar nun la mel. grand contre rek moo di bi yar mooy képp gis gone gu juba ji. Hmm. grand nga. Hmm. gone gi petit la. grand yu contre petit rek. léegi nag loolu dafa xew ci sunum réew yaa ngi dégg léegi enseignants yi di jooy ci élèves yaa ngi leen di duma. dinañ ci ñëw sax. te très bien. bu ñuy aaye fii ne kenn du fi sëmb. duñ yem ci loi ba wax na ko duñ yem ci tele ba wax na ko ndax gone xamul loolu li ñu xam mooy day am ko fay taxaw te di ko tere ku dugg ci biir mu alamaan la mbaamu duma la. lu nun la ñu xale waaye bu fekkee ñun jàpp ne suñ xale yi moo ko àgg 18 ans wala sax àggoo ca nañ leen bàyyi ñu foy nañ féexi nangam ki nangam fii rek lay mujj ndax fukki xale ak benn kat du la tuuti du la tuuti de loolu daraam métti métti la donc état moo war a jóg fa muy tere ku fa sëmb ku fa sangu ku fa dugg mu taxawal fa ay garde yoo xam ne kenn du fa dugg lu ko may dégg lay nekk metti na lool métti na ca parent ya métti na ca ndaw ña waaye fi nekk nii boo demaatoon foofa nga xam ne fa lañ koy tere ndaw ñaa nga fa ñun ñuy ñëw te jaar ci VDN 3 bi nii sa yaram day daw donc yar ndaw ñi daf cee bokk waaye taxaw ci wetu ndaw ñi naan li lii dañ koy tere jërëjëf sa laaj bi am solo bi jërëjëf ñu des foofu ci ndaw ñi wax nga ko léegi euh, professeur yi nga xam ne dañuy euh, ñaxtu ne ndaw ñi léegi wala élèves yi dañuy dóor seeni professeur mhm. bu ñu fàttalikoo daaw am na benn xale bu jigéen boo xam ne ca lycée Blaise Diagne dóoroon na prof EPS am ba gaañoon ko ci kanam mhm. euh, bi mujj muy altine bi ñu weesu ca université bi étudiants yi di def cours la benn étudiant ñëw daal di foqati micro professeur bi euh, loolu ñu gis ne euh, bëri na jamono ji ba si lycée yeeg yëpp mhm. fu ñu ko gisul daal mooy daara yi dëgg la waaw donc loolu lan lan lan lañ ci mën a jàngatee ak lu ci mën a doon euh, euh, tegtal yi ñu ci wan a joxe pour saafara mën ci am. dafa am benn phénomène bu am ci école ak université. Hmm. wax nga ko léegi amul ci daara. mooy gis nga professeur def daan mag étudiant. waaw actuellement léegi prof yeeg étudiants yi. ñoo bokk génération. ginnaaw ñoo bokk génération nag. da ko daan xoole bëtu papa léegi doo ko xoole bëtu papa bëtu morom nga koy xoole da nga koy ñeme am na jamono yooyu boo mu sant seen sa professeur ci mbedd mi du la seen ak lu mën a xew boo doon bëgg a dugg cinéma fekk muy dëgg billet hmm. nga ñibbi hmm. léegi ndax loolu xamante hmm. no léegi ñeme ngaa jor ab cigarette dem ca sa prof ne ko taalal ma monsieur taalal ma mu taalal la nga xëcc muy xëcc loolu kenn mësu koo ñeme léegi kon loolu moo waral léegi diggante boobu di am hmm. léegi na daa war a am nag ay ay yëf ci am mooy gone wërta am fitu jàkkaarloo ki koy jàngal di ko wax baat bu rafetut sax waxuma laa ci dóor nit ñu défendre xale yi ne bu leen kenn dóor hmm. nu ko war rañwal ne wax défendre ñuy jàngale ne bu leen kon dóor hmm. inna al muallima wa tabiba kilahuma laa yansahaani qum lil muallimi wa fihi tabjila ñu naa mu ne kaadal muallimu an yakuna rasula maanaam waykat arab bi dafa ne bu si ki jàngal bu ñëwee neel ñokket jóg taxaw ne ko way monsieur maggal mm-hmm. ko sa kemtalaay kattan mu ne ndaxte docteur akub jàngalekat tuutee tee ñu nekk yonent mm-hmm. innal muallima mm-hmm. mu ne docteur akub jàngalekat tuutee tee ñu nekk yonent xum lil muallimi wa fihi tabjila ñu ne ha ah, mu ne kaadal muallimu an yakuna rasula tuuti kon jàngalekat nekkub yonent léegi nag niveau boobu la ñu war a fexe ba ministère beek eh, inspecteur beeg directeur beeg ñëpp dugalul ci boppi xale yi ba benn xale du am sa aw fitu taxaw ak monsieur naan ko da ngaa ñaaw waxam laa yeneen baat yi wa shukran ci laaj ba am solo bi. jërëjëf jërëjëf ñu jàll ci leneen. Mhm. Euh, actualité euh, mën nañ ko wax politique sax. Mhm. ndax mu ngi jëm ci radiation capitaine Omar Touré. Mhm. boo fàttelu ko mooy ki yoroon euh, enquête bi. jëm ci dossier Sonko Adji Sarr bi nga xam ne. maandu nga ci bëgg. Mhm. Euh, moom nag dañ ko dañ ko dañ koo ràjjee maanaam dañ ko génnee ci gendarmerie. Mhm. Euh, gannaaw euh, jamono yooyu nga xamee ne coow li bëri woon na ba mu ne woon dafa démissionné. Mhm. ne démission boobu dëppoowul ak yoon. am na sanction buñ ko tegoon tey jii ñu ràjjee ko. nee nañu nag moom dafa daf li nga xam ne mooy faute lourde contre l'honneur. radiation bi jàpp nga ne yoon la. lu ñu waroon mën def la. Euh, waaw mën naa am mu am lu ne ca suuf lu ñu yëgut nun ñi ci biti. Mhm. mën naa am bu fekkoon niñ ko yëgee nun ñëpp nag ñoo ci tolloo niveau. Hmm. mooy radiation bi war naa am lu ko jiitu. avertissement. waaw mais nag xam nga toujours yu mel nii mën nañoo am ñàkk tolloo ay onde hmm. ay fréquence kon ñoom ñay rajo peut-être ñu xam ca dossier ba luñ ci xamul ñun. waaye bu fekkoon ñoo ci tollooy ond mu mel nii rek ñun ñëpp nu bokk ko dañ naan radiation bi non war na am lu ko jiitu mooy jëlee la fi yóbbu la barab sàngam làq la fa waaw ab diir ab diir mhm. suñ gis seen soppeeku nga ñëw toogaat ñu gisee seen soppi ko buñ la rajee kenn dox dara mhm. léegi nag ndax loolu am naam amatam déet ñun ñu ci bitti mën nañ koo ñàkk a mhm. waaw loolu rek lay tekki la am solo la jërëjëf euh, bi ñuy bi ñuy mujjalee balaa ñuy ñëw ci ndenkaan bi. Mhm. mooy tournée bi nga xam ne euh, président Macky Sall def na ko. Mhm. Euh, ci fan yi ñu weesu. def mhm. naa dem la jeex ñu gis nag ci période tournée bi. ne bëri na ay fitna yu ci am violence. violence yi nag ñu ci ràññeeku mooy ñu ñu wax ay nervi mooy gros bras yi nee nañu nag dañ doon brutaliser ñi nga xam ne ñooy militant wu. Euh, Fouta yi maanaam ñooy nga xam ne ñu ngi nekk seen gox am lu leen metti bëgg ko fësal ci kanamu président de la république waaye ñooñee dañu ñëw ngir noot leen. Mm-hmm. mu doon ay violence yoo xam ne ñu bëri ñaawlu nañ ko. Mm-hmm. Euh, ba président Macky Sall sax ne lu légitime la. Mm-hmm. Euh, askan wi am lu ko metti mu jébbal ko yeggee ko seen njiit. loolu noonu ak violence yooyu nga xam ne moo ci am. est-ce que doon lu ñu mën a reconnaître Sénégal ak yenn danger moo mën a nekk ci. ay milices yu nekk jóg rek euh, di def euh, yenn fitna yi. jërëjëf man de bi président àggee euh, université bu Ndar su ma jumut mhm. gis naa ko mu taxaw nii jàkkaarloog benn étudiant kooku di wax di ko jox mu wax di ko jox. Mhm. boobu moo gën violence bi. Mhm. boobu moo gën violence bi te itam bu kenn gën bu kenn gën a aay buur. buur ginnaaw mooy buur moom bëgg naa wax ko xeetam boo doxee digganteem ak ko xeetam yaa ngi koy jural aw xeetam gën koo soli gën koo bañ mm-hmm. du dëgg mm-hmm. bàyyi ko rek barki démb yaa ngi seen euh, ma macaron ñu pes ko waaw séenoo ko mm-hmm. waaw dem ba ci biir nit ñi bañ pes ko saf na sax de ah. <laughs> léegi bu ko moo tax kon yu mel nii violence yeeg ay nerveux ñoom seen yooyu war naa mën naa ñàkk ci yii ndax président bu jóg di seeti xeetam aw xeetam di ko gàttandu mm. lu ca xew rek war na caa xew ñi am li leen naqari dañu ne ko président lii moo naqari mm. rawatina su fekkee li la naqari da wut morso ba xonq takk ko ba bu la gis xam ne mer nga léegi nañ bàyyi loolu rek mu jàll mm. waaye su fekkee nag dafa am ñu jóg nag bëgg cee dugg ci yooyu euh, tudde seen bopp nangam nangam loolu loo ci mën a xew rek day daal di métti ci xeet wi ndax xeet jot ci seen président président du jot ci xeet wi diggante bi commencé sore bu commencé sore ñee dañuy tàmbali di bañ président ñi moom itam mu tàmbali aw xeetam réer ko te loolu doon luy defar. ko mhm. sukkandiku ci sa laaj ba am. solo jërëjëf ñu jeexal foofu rek euh, euh, gis nañ ko ci mois de mars fitna yi amoon nervi yooyu noonu ñu ngi leen doon wax aussi tey ñu ñëwaat mais ba léegi ki ci war a taxawee muy justice yoon. dafa ci dara ba léegi lu ci war a doon taxawaayam. waaw jëmbal xëy na loo ne bu ma doon buur def ko buur ma nga ca. Mhm. jëmbal xanaa da buñ gisee yu mel nii daañ ci taxaw taxawaay yoo xam ne yu mel ni dootul répété wu dootul am. Mhm. ndax baaxul ci nun baaxul ci ñoom baaxul ci penc mi baaxul ci démocratie tamit. d'accord d'accord ñu jaajëfal la loolu moo nekkoon euh, question d'actualité yi. Mhm. ñu bàyyi la rek nga dénk ñu balaa ñu tàggatoo. Ah, jërëjëf dénkaan dénkaat bi xam nga bu njëkk ma dénk célibataire nga woon. <laughs> léegi mu lay dénk am nga benn garaat waaw du dëgg léegi kon ndénkaan yi léeg-léeg mu wuuteeg ndénkaan yu njëkk ya léeg-léeg <laughs> dénkaanu tey bi mooy boo yore jabar bum xam sa bëgg lekk bum xam sa bëgg doom boo amee jabar bum xam ne yow ku bëgg lekk nga bum xam ne yow ku bëgg doom nga mën ngaa bëgg lekk nag. Mhm. waaye bu bu bu ko leeree naññ du luy defar. Mhm. mën ngaa bëgg doomit bu ko leeree naññ du luy defar. lu muy mën a yàq. li mën yàq mooy bu sa jabar xam ne ku bëgg lekk nga. Mhm. bu la meree doo lekk <laughs> wala doo lekk lu neex. bu xam ne ku bëgg doom nga bu la meree da da koy daggalu aw saaga te day jàpp ni bi mu koy saaga yow lay saaga. moo tax ñaar yu ñu koy nëbb jabar bëgg lekk bëgg doom. incha allah jërëjëf yal na yàlla defal la barke nag. amiin ci sëy bii. jàppale leen baax a baax ndax ànd moom. lama waxoon keroog ci dénk la ko rek mooy bul di di santaane lu kenn mënut waaye bul gàntaloo man moom tam mu def ko rek. su boobaa jàmm ne ñooy communication bi seen diggante bu bu bu bu war di dox lay doon. la ci teg mooy saa booy wàccit bu fekkee mënoo ko chaque jour it. Mm-hmm. li ci ëpp del ngàbb loo yóbbaale. bul xeeb benn pom bul xeeb benn banaana bul xeeb sax benn tàngal bége waaw yooyu maanaam ñëw ci kër gi te nga boo dara daal li fekk yaa ngi koy man dee ko moytu li fekk yaa ngi koy man del moytu ñëw ci kër gi te nga boo dara ndax loolu saa bu ñëw jox ko rek dafay am benn ubbi muy ubbi li ñu tuddee technique de communication dafa am benn fréquence bu muy ubbi bi nga indee dara as waxtaan mooy tàmbalee ñëw waxtaan soosu mooy sippi mer mi nga fi fekk wala mer mi nga indiwaale jërëjëf merci jërëjëf oustaz alhamdulilah joxante dig daje ba aljuma incha allah jërëjëf kon mbokk ñu daal di gunge sunu mbokk Cheikh Abdou Khadir eh, tabarakallah daal di ñëwaat ci jotaay bi incha allah muy ñetteelu xaaj bi te mooy way seetaani ci biir réew mi ci bitim réew jërë ngeen jëf